dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci ab mbirum règlement de compte bu doy waar bu ci diggante ab couple maanaam ñaari nit yu bëggante woon loolu en Diop euh, di copain ci ku ñuy wax kaa mbay moo daal di venger wu rek ci anam bu day waar ki nga xamante ni moo di copinam bi ginnaaw rek bi nga xamante ni bëggoon na koo takk mu daal di bañ ana lan la en Diop mi nga xamante ni moo nekkoon faaru kii di kaa mbay li mu def nag moo di yàmbaala daal di jël dugal ko fi di liggéeyee ba pare rek daal di woo waa police moom Ka Mbaye nag candidat la woon au waaye tamit doon na allié li nga xamante ni moo di étude ak travail ba tax mu nekkoon caissière ci benn fast food te boobule fast food nag ci dafaram bi daal di dugal ak yamba ju bëri ngir daal di koy venger wu ginnaaw rek bi nga xamante ni nee na ko dama laa bëgg a takk moom ndaw si daal di bañ moom Enda Diop nag di faru ndaw si nag ginnaaw bi mu defee acte bi dafa daal di woo waa police mbir yi nag mu ngi xewee ca quartier Santhiaba ba nekk ca Louga waaye nag li olof di wax ko ëppati mbokk mënoo ko jëw ginnaaw rek moom N Diop bi mu defee acte bi ci la waa police dal di mëne benn enquête boo xamante ni mooy retourné wu contre moom ndax kat benn xaritam bu ñuy wax M Gueye moom moo rek daat koy yoole ñii di waa police ginnaaw rek bi nga xamante ni jël na yàmbaa ju bëri yóbbu ko ci bërëbu liggéeyukaayu corom bi ngir taxal ko moom M Gueye nag li xam xamle ci kanamu enquêteurs yi moo di moom ci boppam moo jox kii di N bi ngir mu daal di accuser ki nga xamante ni moo di copinam bi ngir rek daal di koy takkal ginnaaw rek bi nga xamante ni bëggoon na koo takk rek mu bañ ginnaaw away am géy gi nag ci la waa police daal di teg loxo ki nga xamante ni moo di N waaye tamit complice am bi di wujoo ci am géy moom mi nga xamante ni moom moo def révélation bi di daal olof njaay naan ay du yam ci boppi boroom te ko ëpp ti mbokk mën a koo jëw ci la ngeen jëf fii la ñuy yam ak yéen ba beneen yoon